ministre de la ministre de la justice. ñëpp ñëpp li mu ci def avec le avec euh, le président la République Macky Sall et son son gouvernement donc tey jii nii il est beaucoup plus crédible bu bu nekk opposant ko ki nga xamante ne mooy mooy mooy Mimi Touré mooy ki nga xamante ne Idrissa bu kooku noonu mu nekk mu nekk une femme solide très solide même. bu bu bu ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko. waaw ki nga xamante il est très suivi quoi qu'on qu'on qu'on puisse dire. donc moom euh, dans les comment dire en perspective des des des élections locales mën nañ ci mën nañ dem bokk daal euh, def benn mouvance bu rëy daal di pour pour le moment les la majeure partie des de des des communes su boobaa nag euh, waxu présidentielle ñoom ñëpp c'est sûr. Ousmane Sonko candidat lay nekk également on est en train de de de parler les ambitions politiques de de de chose qu'elle n'écarte pas donc loolu bu foofu beneen débat lay nekk mais pour le moment il est très bien possible ñu gis collaboration Ousmane Sonko ak Mimi kam avant maa ñëw foofu noonu. Mm-hmm. mais juste vraiment donc de dire aux internautes tey jii fu mu ne nii ñun ñuy suivre ay commentaires vraiment donc ñu ngi am bu baax mm-hmm. a baax tey jii ci suñu page. te mën nañ jàpp ne itam donc ñoom déjà donc ñu suivre de près te xam nañ déjà bu fekkee aussi donc am na yoo xamante ne vraiment après dinañ ko jàllale. commentaire yi donc voilà donc. man maa ngi leen def vraiment coucou mhm. vraiment donc aussi di leen wax ni noonu la mhm. mais juste pour dire que avant ma laa joxaat kàddu gi mhm. parce que déjà tey jii mën nañu wax ni donc c'est un peu complexe par rapport à beaucoup de choses tey li ñu mën a jàngatee tey euh, par exemple tey ci euh, installation tey euh, Idrissa Seck mooy déjà am na ay maanaam ay opposants yoo xamante ne tey maanaam ni ñu maanaam ni ñu maanaam fermé woo donc par rapport vraiment donc à rejoindre Macky Sall lu ci lu ci mel malheureusement ça n'intéresse pas tey peut-être euh, avec leneen loo xamante ne déjà donc tey Idrissa Seck jàngat na ko ci lu mel ni vraiment moom réew mi moo ko soxla donc bu fekkee réew mi tey soxla na ko est-ce que tey donc du dem wuyu si am ñoo xam dañoo ne problème xaalis la am ñoo xam dañoo ne tey peut-être Idriss Seck dafa xam ne mënatul am dara tey ci politique bi am ñoo xam ne aussi dañoo ne Idriss Seck dafa dem ba xam ne fu mu ne nii donc bu àndut ak amati dara ci ci ci ci ci làngu politique bi beneen bi mooy bu fekkee ne yaakaar nañ ni vraiment bi tey ñu ngi suudee ak ñi nga xam te vraiment ay ay tête lañ lu mel ni ay Sonko lu mel ni ay Khalifa Sall lu mel ni ay Mimi Touré tey jii bu fekkee tey def nañ vraiment donc benn coalition wala tey ñu je pense que donc ça sera donc maanaam un boom vraiment te yaakaar naa éviter ça donc ni mu mënee kam quand même donc lépp loo xamante ne mën na ko éviter donc dina ko éviter parce que danger la ci moom. mais ak il faut souligner que Idrissa Seck duggoon ci gouvernement bu njiitu réew Macky peut-être am avantage pour moom mais lu ko lu parce que dañu gis que ne Sénégalais yu bari am na lu ko war gannaaw même ñi nga xam ne ñu àndoon ak moom ci parti bii di réew mi war nañ ko ginnaaw itam. Euh, comme ni nga am na ay inconvénients. bu ñu commencé si inconvénients yi euh, Sénégal tàmbuñu wala boog population sénégalaise bëggul kii kuy transhumé bëggul benn nga nekk ab politicien nga jógee si opposition nga dem ci ci ci ci ci ci gouvernement bi sénégalais bëgguñu la dañu bëgg nga nekk euh, opposition nga fidèle nga voilà nga travail comme euh, nga nga défendre euh, les idées nga xamante nga daan depuis depuis depuis le début loolu ak inconvénient yi nag dafa am ay nit ñi nga xamante ne lay bàyyi ah pour preuve yi moom depuis fekk ji ki nga xamante ne mooy Macky Sall il a perdu de costette ay militants yu bëri comment dire moom ñàkk na ko nekk aussi avantage avantage a fan lay a ba eh, si euh, bu fekkente ni Macky Sall n'a pas n'a euh, pas l'intention de faire un euh, troisième mandat bu fekkente ni Macky Sall n'a pas l'intention de faire un troisième mandat et que mu xool classe politique bi ñi mu nekkal amul kenn ku nga xam ne war naa ko mën a ngemb pour mu remplacer nga nekk sa dauphin tamit moom dèjà du dem. il faut mu xool quelque bi nga xamante ni il est là il est bien politiquement ñëpp xam nañu. il est bien kon kon mën nañu confirmer que ni Macky Sall dafa bëgg a préparer ki nga xam ne wàccee peut-être mën nañu jàpp loolu. on peut pas être affirmatif. Mm. on peut pas être affirmatif dire que Macky Sall bëggul euh, mën nekk les deux sens à la à la fois. mën na nekk un moyen bi nga xamante ni day day day day jéem a eh, écarté yi nga xamante ni ñoo xamante ni nekk opposition bi nga ni dañ koy xañ troisième mandat. Mm. te boo boo ko si wetam déjà écarté naa en en en en faisant l'approcher écartement ko mën na aussi nekk en euh, beneen aspect bi comme ni nga ko waxee préparer quelqu'un ki nga xamante ni euh, am na envergure te ñëpp xam nañu Idrissa am na envergure préparer ko ci wàllu ci wàllu ci ay secteurs yu bëri déjà préparer ko euh, mu nekk. travail ci conseil économique social et environnemental bu fekkee ne def na résultat bu rëy sénégalais dina dina retrouver on peut l'empathie l'empathie euh, la sympathie la sympathie des sénégalais mm-hmm. mais également euh, dina am les moyens ñëpp xam nañ ah c'est quoi les moyens gouvernement c'est quoi les moyens de l'État bu fekkee ne nag sax il est prêt mu soutenir Idrissa Seck forcément bu dee moom mu bu dee Idrissa Seck bu nekkee par exemple candidat du du du euh, Benno Bokk Yaakaar bien sûr ku mu àndal moom tam fekk nga demul képp à des deuxième tour Idriss Seck et quelqu'un d'autre peut-être yeneen ci opposition bi mu loolu mën a nekk parce que gouvernement moo koy ngeem euh, état moo koy ngeem tamit am nañu tous les moyens les moyens d'abord les moyens qui sont légaux mais aussi ak les moyens yi nga xamante ni dañuy jaar si procédure si procédure électorale yi daal jaar fu nekk def ko si nekk def ko def ko def ko def ko à sa à sa disposition mën na ko euh, booster mën na ko pousser mu jëm ci kanam loolu mën na nekk comme euh, comme comme avantage mais en tout cas pour le moment tout est flou Thierno bu fekkee commentaire am na lu ñu mën a dicter. waaw effectivement parce que déjà commentaire yi moom fu mu ne euh, ci euh, YouTube bi gis nañ vraiment donc internet yi fu mu ne nii bu ba a baax. juste am na ñoo xamante ne déjà donc ils se posent des questions par rapport à Idrissa Seck est que depuis déjà donc Idrissa Seck donc mu ngi nekkoon ba tey idi idi mu nekkoon comme euh, déjà donc question bi. voilà voilà donc kii di Mouhamed Diagne moom dafa activités climatisées et cetera des trucs du genre par rapport à donc dañuy wax exactement est-ce que Idy juumul donc ci choisir kii di Macky Sall donc juste que ci ay yeneen di kii nii di Abs eh, Abs Diop dafa ne depuis 2004 il n'a pas travaillé maanaam il n'a pas travaillé les chantiers de Thiès il a volé des milliards et cetera donc xam nañu en fait il s'y parce que déjà koo xamante ne déjà tey doon na tey ci benn domaine déjà donc nekkatu fa te aussi am na tey ñu fi bàyyi woon déjà xam nañu aussi donc ñu ko jëlee tey ci nguuru Wade donc tey ñu mën a yaakaar ne est-ce que déjà donc lii du def impact par rapport à beaucoup de choses euh, li muy def euh, am na euh, kii kii di Fally Badji moom dafa ne Idi moom jarul sax muy installé wu ndax du tous donc ay donc bu fait c'est c'est des commentaires yoo xamante c'est vrai bon actuellement sénégalais yi mën nañ jàppale commentaires yëpp de cas général gisuñu ci koo xamante ne vraiment donc dafa en fait dafay ne ne day bu ci Idy basé woo est-ce que aujourd'hui donc vraiment donc dina mën a toog installé correctement mais juste déjà il a des preuves à faire il a beaucoup de choses mais juste c'est pour cela tey gërëm ak Macky Sall voilà moo tax tey gërëm ak euh, Mimi Touré donc lu ko parce que déjà dafa si bees bees li mu waroon def déjà mooy pour a taxal ñu xam ne Idy là pour bataaxal Idi dafa ñëw déjà donc change la donne fi ñu doon xaar Idi tey pour mu jàppale Macky Sall ci ay xeexu interne wala et cetera mm-hmm. moom mu ngi occupé juste poste am mais demagul fenn installé wul sax muy commencé di fouiller des trucs du genre mm-hmm. vraiment. mën nañ jàppale fu mu ne nii daal euh, yëf yi daal euh, tànge lool ci côté Idriss rek donc ci côté internet yi. Euh, fàttali leen que ni ñoo ak yéen ci seen matinale préférée di leen am live tey nag ñu daal ci ki nga xam ni mooy Idriss Seck ci kanam tuuti ki nga xam ni mooy Astou Fall ak Fallou da nga cee conseil économique social et environnemental lépp loo xam ne rek faree na foofu dañu ko dicteur en ci biir Leral TV Leral point net ak tey lan lañ mën a xaar tey foofu ca conseil économique social et environnemental ci bi Idriss Seck. pas, pas, pas, pas grand-chose. Donc, euh, extension, bon, pas extension, extension là, a tout de ça, présentation. Donc, euh, euh, euh peut-être, mon euh, euh, quelque chose qui n'a pas été fait, qui n'a jamais été fait, mon bon, vous me dites, fasciné l'idée, peut-être aussi, mon son programme, d'ici quelques, quelques mois. donc on ne peut pas attendre. donc parce que est-ce que mën nañu ko xaar mu prononcé wu ci digganteem ak ki nga xam ni moom Mimi ak Diène bi ñuy wax si ñoom ñaar. ah na ci prononcé wu bu a baax parce que déjà Mimi Touré déjà moom mu ngi tontu ah. bu baax a baax te moom il avait dit clairement eh, que day day saytu bu baax a baax yi nga xam ne mooy yore ñu Mimi Touré liggéey bi mais. xaaruma carrément mu ci wax carrément parce que euh, ki nga xamante ne foofu ak moom parce que parce que c'est un ki nga xamante ni euh, foofu touché pas eh, a jible nga toog fii di ko di wax ay ay wax ce sera un peu compliqué. mais vu que dafa ñëw euh, deful mu dàq ñi nga xam ne ñu tuddee doon na liggéey moom ak ñoom est ce que tey jii nekkul loo xamante si ni lu war a am na moom utiliser seen ñu prononcé wu ci lu mel. waaw il a il a des prérogatives ko mu limogé bu neex parce que mooy mooy dirigé fu mu nekk nii structure boobu conseil économique social et environnemental mais du ñu xaar carrément mu muy jugé fu mu nekk nii comment def ki nga xamante ne mooy mooy mooy mébité parce que loolu dafay dafay tax les gens qui sont là di ko poser yenn question yi moom digganteem ak ak mébité te loolu dina peut être yàq li nga xamante ni mooy installation bi ak ak ak sama jëm donc lu ñu xaar mooy lu ñu mën a xaar voilà mu tëralee liggéeyam fu mu jëm ak fu mu jëm ak sénégalais ak collaboration. ak bien sûr kuy bien sûr kuy dafay engagé wu parce que bul bañ engagé wu ñëw di di di tekk te comme il a il a l'habitude de le faire mu nekk nii. Conakry, il est obligé d de faire une communication personnelle. Il est obligé de le faire. C'est sûr qu'il va le faire. Ah oui, il est obligé de le faire parce que bu ko deful rek day daal di day daal di day daal di métti bu ko deful nit ñi dañuy dañuy gën a comment dirais-je confirmer que dil dil am na voilà diggante Macky Sall bi et ce sera quelque chose de de de désavantageux à à son égard. a déjà donc ci conseil économique et social et environnemental mooy déjà donc ay en bees déjà donc juste ce qu'on dit actuellement nii Astou Fall donc mu ngi euh, sur place donc on va essayer vraiment donc par téléphone exactement donc situation bi nga xamante ne daanaka exactement lan moo fa dippee ak exactement donc ambiance bi fa nekk ndax gars déjà ils sont prêts vraiment à acquérir le parce que actuellement je pense que ñun ñëpp fu mu ne nii exactement donc lii nii voilà ñëpp ñëpp a koy donc Astou Fall je pense que ko am euh, ci euh, antenne bi comme sa mu wax ñu exactement situation bu euh, fa nekk bu fekkee ne baax na comme ça. bu fekkee baax na waa régie. voilà voilà donc en attendant. en attendant voilà voilà juste en attendant déjà donc on a vu que vraiment Idrissa Seck avec poste yu mu occupé yëpp déjà donc du poste yu ndaw ah donc Idrissa Seck du occupé ay poste coono waxuma laa nag donc mu tey mu nekk le président du conseil économique social et environnemental. Banturam dafa riche Banturam dafa te aussi après tout donc même bu fekkee tey ñu ngi koy traité leneen mais en tout bopp la en tout cas Idy vraiment donc liggéeykat la te tamit mën nañ yaakaar ne vraiment donc tey jii mu indi yeneen coppali mais beneen bi mooy euh, déjà comme lu ñu gis rek comme que xam nañ état aussi donc continuité la lépp bépp man yaakaar naa ne aussi bu fekk tey lu ñu fay jëlee mooy déjà euh, lu loo xamante ne déjà Aminata Touré kii nga xamante ne déjà moom la remplacé euh, lépp ay maanaam ko fa woon yoo xamante ne mën naa jëmale réew mi kanam itam ñu xool intérêt réew mi ñu bañ a xool un intérêt personnel te yaakaar naa ni donc il fera vraiment donc euh, comment dirais euh, différence ci euh, par rapport vraiment donc à ce qu'il va procéder et en plus de cela tey yaakaar naa ni bu fekkee tey nekk na ci benn lancé ñu ciy doxal mu dox rek xam nañ ni vraiment donc ñëpp ci jàpp en plus la Idrissa mu ne nii nit ñi li ñuy xaar ci moom mooy mu indi beneen Idrissa Seck beneen kanam mais bii moom Sénégalais yi doy na ci sëkk mais déjà bu fekkee tey am nañ benn lancé boo xamante ne tey moom mu ngi koy jël wala déjà moom moom mu ngi koy entamé mooy indi fi loo xamante ne keneen tegu fi woon après cela ay parce que déjà bu fekkee tey décortiqué nañ déjà poste bi mu occupé du du du du du poste coono tey jii mën nañ euh, xam ne déjà occupé na premier ministre donc déjà premier ministre aussi donc xam nañ ni dafa diis lool ok euh, mu mu occupé aussi donc euh, mu mu nekk aussi donc euh, ministre d'état directeur euh, de comment de cabinet donc kii di président la Wade ñu xam na aussi donc moom bu fekkee tamit aussi mu ngi nekk tey jii donc ci poste bi nga xamante ne déjà mooy conseil économique social et environnemental donc yaakaar naa ne mu mën la ak lu mu mën lu mu lu mu lu mu euh, lu mu mën a juste pour dire que bu fekkee tey jàppandi na jusqu'à présent on essaie toujours donc de joindre vraiment donc Astou Fall exactement voilà lu jàppande mais tey damaa gis ne am responsable politique yi nga xamante ni dañ doon nen ñi tey maanaam Idrissa Seck ñu ngi ci parti euh, APR mais tey da ngay gis ne vraiment ñoom ñëpp tey dañoo def benn délégation dem foofu noonu te tey mën na xaar est-ce que tey jotul ñu xoolaat suñu politique bi am parce que bu ñu demee passation du service lañ daan am tey ñu dem di amal li nga xam ne mooy installation est-ce que jotul ñu saytuwaat politique bi fii ci Sénégal est-ce que là ça pose mu nekk euh, benn problème bu rëy euh, politique bu Sénégal loolu nag il faut ñu remonter un peu parce que ñu xoolaat parti politique yi euh, au Sénégal est-ce que on ne doit pas redéfinir c'est quoi un parti politique lan mooy parti politique parce que fii on on plus ou moins ki nga xamante ni mooy ki nga mooy moo moo moo moo parti bi parti bi si si moom lay dépendre moom moo incarné parti bi mm-hmm. c'est-à-dire ab idéologie parti bi amul école parti c'est-à-dire moom moom moom parti bi fu mu dem yóbbuwaale yóbbuwaale parti bi kon gis nañu ni Idrissa Seck ak réew mi moom bu demee forcément réew mi lay dem. ak ak yeneen pardon mm-hmm. donc nekk li nga xamante ni. D'abord, c'est une question de, de, de, gestion des partis politiques. Nous congrès, de l'IPIS, démocratie dans les partis politiques. doo comprendre affaire bi euh, exactement c'est quoi PDS wane wane wane euh, parce que depuis Abdoulaye bi fi jógee en 2012 2019 PDS pourquoi parce que le candidat choisi par euh, Abdoulaye Wade en l'occurrence de son fils Karim Meïssa Wade a été écarté PDS amul can amul candidat bu fekkee peut-être candidat boobu noonu buñ ko écarté on l'avait on aurait choisi en tout loolu bu amulee dafay am problème bu parti politique donc bu boo xoolee loolu parti politique nga xam ni nit nit moo ko incarné nit moo ko def moo ko moo ko santalee boppam amul débat politique amul congrès amul dara genre genre bu ñëwee parti politique genre bu ñëwee duñ gis la parti politique bi mais dañuy gis nit ki nit ki la ñuy gis Abdoulaye lañuy gis wala Macky Sall la ñuy gis wala Idrissa Seck la ñuy gis wala Ousmane Sonko la ñuy gis moo tax nag day andi problème yu rëy moo tax euh, bu ñaari nit xeexee cest qui celui celle qui dirige la personne qui dirige le parti ak keneen bu ñu xeexee rek automatiquement dafay mel ni ñaari parti ñooy ñaari parti ñooy ñooy amante amante problème donte sax ak problème personnel donc il faut ñu xool ñu xoolal lépp mais aussi le nombre des partis day xëy day xëy rek càlla day xëy rek voilà voilà créer créer parti politique amul benn souci amul benn problème euh, duñ du ñu laaj peut-être ñaata nit nga am mm-hmm. pour moi pour man avant nekk benn parti politique au moins xam nga ñëpp xam nañ l'objectif na daal Euh, benn parti politique mooy conquérir le pouvoir